voilà asalaamaaleykum soxna Fatma.
waaleykum salaam.
ba tey rek xanaa jarutu may ma koy baamtuwaat.
dëgg la comme ni ma ko waxee sëriñ bi rek. sëriñ Pape Cheikh Pape Diop. rek suñuy tànk moom xam nañ que.
dëgg sa autorisation ndax mun nañ ci am wala d'accord nga ñu enregistré ka waaw waaw waaw.
waaw mu nga bismillah bon nag yow tamit ñu bàyyi la.
waaw waaw nga wax ñu yaay kan. ay xam nañ ne doom nga ci famille bi.
dëgg la waaye ba tey wax ñu noo ci bokkee.
dëgg la.
waaw
bisimilah rahmaani rahim. man maa ngi tudd Fatma Kunta Fatma Bona Kunta doomu Alaaji Mamadou Kunta ak Soxna Sodaka dëkk Ndiassane maa ngi juddoo Kamataan Ndiassane Saloum foofu la sam papa sancoon en dix neuf cent quarante lan ay quarante quarante quatre quarante cinq yooyu daal.
ci guerre bi.
naa xëy na avant loolu na xaw ma ndax guerre bi la wala avant guerre bi ndax man maa ngi judd en dix neuf cent cinquante cinq waaw cinquante cinq laa judd waaw Kamataan nga juddoo fa nga yaroo.
te Kamataan laa juddoo wante nag fii laa yaroo Dakar si sama bàjjen rakku sëriñ bi moom sëriñ bi ñoo bokk benn baay Alaaji Mamadou Kunta rakkam moo ma yar fii ki ci Ndakaaru.
waaw
bon nag miinoo Ndiassane lool.
Njaasaan nag miinuma ko bu baax ndaxte maa ngi fa dem en 1974 bi sama bàjjen gaañoo mu ngi gaañoo en 1972 après si laa demaat Kaolack 72 ba 74 ma jóge fa ñëw Njaasaan boobu la bi sama papa toogee mu ngi toog en 73 waaw
bi mu gaañoo da nga delluwaat Kaolack wala da nga des Ndiassane.
léegi bi mu gaañoo dama des Njaasaan ndax dama ñëw Njaasaan en 74 si même année boobu si laa sëy waaw si lañ ma maye. fa laa des nag ba ni ma ñëwee fii Dakar en 77 laay ñëw fii waaw.
Eh, xam nañ ne kuntu kuntu yu góor ñi dañ leen jàngal.
dëgg la ndax jigéen ñi ñi ñuy da- jàngale góor ñi noonu ndax dañ jigéen itam dañ leen dem daara jàngi bi ngeen nekkee xale.
déedéet.
ak fu sa jigéen ñi ak fu nag sa àll wa toll toll buñ ko mënee xam.
waaw ñun daal. jigéen ñi suñu sama papa dafa wutoon euh, kii dafa doon wut sëriñ muy ñëw sa kër ga di leen jàngal man nag fii laa nekkoon si laa jote jànge euh, alxuraan li ma fi jote jàng nag bariwut waaw fii laa jote jànge tuuti ma nekkee sama bàjjen man dama jàng école itam français laa jàng itam waaw fi mu nekk da ngay liggéey wala déedéet jotumaa liggéey nag Aha.
jotumaa liggéey da nga jàng ba ban niveau.
jàng naa ba troisième secondaire wante jotuma am sama BFEM waaw
ndax li tax may laajte baw mu ne gis nañu kër sëriñ yoo xam ne ñu jigéen ñi dañ daan jàng dëgg la comme boo gisee waa kër Baye Niass ñoom Seyda Marème Niass ak ñooñu xëy na sax suñuy waajur lañu waaye am jigéen ñi daan nañ jàng parce que ñoom Marème Niass bu ndaw ak ñeneen ak ñeneen jàng nañu Dëgg di la.
seet ba xam ginnaaw yow parce que am nga yow am nga sa cursus waaw waaw am na ñeneen jigéen ñoo xam ne doomi kunta kunta yi nga xam ne jàng nañu jàng yu sori jigéen ñi waaw jigéen ñaa ngi doon jàng jigéen ñi nga xam ne dañu yaroo Njaasaan doon nañ jàng wala ñu yaroo feneen nekkoon Saalum itam ñu ngi doon jàng ñi alxuraan desoon kamataan ñu ngi doon jàng waaw ñu ngi doon jàng man nag xëy na li ma nekkoon fii moo tax man dama ñëw jàng français jàng naa alxuraan wante bariwut
ñi jàng nga xam ne seen jàng sori nañu par exemple par exemple jàng ba mën a di firi wala jàng ba mën di waaraate si jigéen ñi ndax bari na ci ak ñoo ci xam buñ ci mënee déedéet, limal ni ma si gis daal jàng jàng nañu wante defe naa demuñu niveau boobu egguñu si niveau boobu. waaw
yow si sa ndaw yan mooy événement yi la gën a marqué wala nit yi la gën a marqué si sa ndaw
événement yi ma gën a marqué daal moo doon comme gàmm waaw gàmm moom marqué woon na ma trop bi may nekk xale itam toujours dañ daan dem bu gàmm jotee dama daan ànd ak sama turandoo ñu dem Njaasaan gàmm ji
ba yow miinu miinu la woon sëriñ bi bu baax sa papa laaj Mamadou Kounta ma ne ko miinuloo ko woon bu baax déedéet boo dee seet daal suñu par vacance nag daan naa dem Kamataan wante ki ma gën a miin dëgg daal mooy Serigne Sidi Yaxya kooku moom boo dee seet presque ndax sa mbàjjen jëmukaayam presque foofu la ëppee woon lat menge moom ni ma ko miine sax miinewu ma sam papa noonu moom laa gënoon miin ko sam papa moom moo doon quatrième xalif waaw après sam papa waaw c'est Sidi Yaxya waaw
bon léegi sa sa bàjjen moo la yar fii Dakar waaw waaw
di jigéen si sa papa waaw léegi est-ce que mun nga ñu wax kan sa bàjjen mi mun nga ñu waxtaanee sa bàjjen tuuti ñu xam mooy kan
waaw sam mbàjjan doomu Cheikh Bou Kounta la moom mooy Fatma Bouna Kounta amoon na am na càmmiñ boo xam ne moom moom ñoo bokk ndey ak baay muy Abdou Latif Kounta moom moo nekkoon fële Tamba Abdou Latif mooy sam mbàjjan ñoo bokk ndey ak baay soxna su baax la woon ku am diine ku am fayda si boppam famille bi ku nekk xam na moom dañ daan wax naan sax Fatma dafa waroon nekk moo waroon nekk góor Abdou nekk jigéen ndax faydaam ak ni mu nangu woon a sonn ak ni mu nangu woon liggéey waaw.
dinaan liggéey maanaam commerce wala lu waaw daan na def maanaam ay kii commerce yu ndaw yooyu dafa diiñoon daal am fayda si boppam ku nekk xam faydaam ak presque famille bi yëpp koo wax rek xam na fan ngeen nekkoon fi ci Ndakaaru
dëkkoon nañu Médina après dëkkoon nañu HLM itam
moom borom këram la nekkaloon fii
moom nag borom këram waa nekkoon na fii ak borom këram wante moom kii moo ko yëkkoon njëkkoon a yor euh, sëñ ndànk Buna maam bàyyi sëñ Mohamed Buna waaw ba jotoon na fa am njaboot wante njaboot yi kenn dundut dañu teel a gaañu bi ñuy nekk xale te bi mu jógee foofu nag la ñëw fii Dakar am na benn borom kër bu ko fi yore woon ku ñuy wax Alaaji Ibrahima Diop si famille grand sëriñ de Dakar yi la bokkoon wante kooku itam jotuñoo am njaboot waaw
donc moom fi mu nekk nii amul benn bàyyiwul benn njaboot déedéet bàyyiwut doom moom bàyyiwut doom tabarkalla moom ci yëngatu yëngatu mi ci ndax amoon na daayira boo xam ne moo ko organisé woon boppam fii Ndakaaru boo xam ne da daan dajale taalibe yi wala daan naka daan yëngatoo ci ci activité famille bi
déedéet nag man nag gisuma woon mu yor ay daayira noonu gisuma woon mu yor daayira
te gisoo ko ne mu bokk beneen daayira tamit fii ci Ndakaaru parce que xam nañ ne rue 11 créé woon nañ fa daayira dëgg boo xam ne boole na taalibe yu góor yeeg yu jigéen ñi ak eh, waa Ndiassane daal la waaw waaw waaw ndax eh, daan na yëngu foofu
gëw ma ko woon gisuma ko woon daal muy bokk ay daayira yooyu gisuma ko woon mu bokk daayira
yow sa bopp naka Waaw.
ngay yëngatoo ci activité famille bi bi nga xam ne ci nga bokk waaw fii daal ñun am nañu fii benn association boo xam ne képp ku dëkk Njaasaan wala nga sant Kunta wala nga dëkk Ndànk ci association boobu nga bokk Ah, soxna Mariama Kunta bi nekk jëppal doomu sëñ bu bekkaay ak soxna Umu Sarr mooy présidente kii boobu association boobu dañuy def chaque mois kenn aye ñu dem këram toog waxtaan nattal ko ku si xewle itam ñu ñëw jàppale la nettal ka nettal ka bu bu- sottil ka natt bi waaw sottil ko natt bi waaw waaw pour mu mun si liggéey lu mu si bëgg a def mun ko si def donc muy maanaam benn espèce de solidarité waaw solidarité waaw donc euh, boo leen ko natt boo leen ko nattalee lu mu ci bëgg de def ko ci waaw ñaata lay am boo leen ko nattalee
buñ ko nattalee taxul muy bari nañu am cent cinquante mille ndax association bi réyagul noonu daal léegi nag jeex na xëy na dina am ñeneen ñu duggaat ndax xëy na biñ ko defee ñu bari dugg ñu woon wante léegi ñu bari bëgg nañu dugg dañ ne woon su jeexee su natt boobu fegee ñu bari dañuy ñëw dugg si waat
est-ce que ci jigéen ñi ñi ngeen sotti la gum waaw gis nga ci koo xam ne lañu ko jox liggéeyee na ko ba nga xam ne amal na ka njariñ jurul la ka njariñ boo xam ne nit mën na ci teg bët
waaw natt bi dina la jural njariñ ndax soo koy yoree di nga si mën a dimbali sa waa kër di- di- kii toppatoo sa njaboot daal suñ la ko sottilee wante liggéey bu am solo moom mënuloo ko si ndax bariwul bariwut waaw, cent parce que cinquante léeg-léeg nga mille gis koo xam ne day dem jënd dem Gàmbi jënd ay kii ñëw jaay waaw dina am ñu siy jaay di def dem di commerce dikk ba moom nga xam ne mu jigi dina am ñu de- dem di def commerce di ñëw am na si wante man nag defuma dara daal man maa ngi toog waaw maa ngi xëy na loolu moo neex cheikh bi waaw yéen seen association boobu ndax da ngeen am ay projet wala da ngeen di bëgg ànd nii rek weer bu jot ngeen data sottil waaw kenn amaguñu benn projet toujours nañuy waxtaane affaire projet yooyu wante daal xaw ma dañu amagut xëy na ku ñu dimbali toujours ñu waxtaan si wante daal dara sotteegut waxtaan ci loolu leen bëgg a def lan ngeen bëgg a def parce que bu pour fekkee ñu da ngeen bëgg dimbali ñu dimbali liggéey.
tamit kii leen di dimbali fa nga nekk lii la ñu bëgg a def lii la ñu bëgg xam naa bu ñu amoon xëy na am mun a def commerce commerce daal laa gis ne moom la fi nit mun a def loo xëy na si lañ si ndax amoon nañ am nañu siy liggéey sax wante bariwut am nañu siy liggéey wante bariwut
léegi yaa ngi naan ma euh, Baye Sidi Yaxya nga gën a miin waaw waaw moom min naa ko waaw moom nga gën a miin moom min naa ko ndax dafa bokk ci nit yi nga xam ne ñoo la gën a marqué ci sa dund wala waaw waaw dafa bokk si nit ñi ma gën a marqué sama dund lu waral loolu dafa am yëg mun a sagal nit daal mun na sagal nit bay si yeexee fi mu jaar ak nit ñi kenn mënu ko wax sax wax doomam suñu bi mu tuuti.
jur ak doom jiñ ko jural yëpp la yemale man daf ma daan oo si daf ma daan oo sax ne ma problème boo mun a am si àddina na nga ñëw wax ma ko soo ñëwee wax ma ko bu ma ko fi- boo ko fi fekkee ma jox la ko su fekkee ne fekk la ko fi itam nga xam ne danga ko fi fekkul ndax su ma la ko joxul jox ko sa moroom ma si dee mbaaxam moom kenn mënu ko wax sax kenn mënu ko yemale si benn baax na trop de
loolu rek moo la marqué ci moom
ah ndax am na yeneen événement wala yeneen jëf yoo xam ne wala yeneen waxtaan yoo xam ne daan na ko def yoo xam ne mën nañ ko tiine daal léegi xëy na Cheikh Sidi Yaxya maanaam ñii la mel wala di la daan jëfee
waaw moom ba si dee de su toogoon di wax sax comme mu toog nii di wax ak lu jëm si affaire gouvernement bi sax sa xel dafay dal ndax day wax loo xam du wax mukk loo xam ne ëllëg di nga génn ñu lay naan ah kii lii la sëriñam wax si di wala la te ku màndu la ku màndu la ku neexoon alxuraan waaw tamit ku neex alxuraan moom xam naa ko te balaa ngaa xam jikkoom sax déggal balaa ngaa kii nga gis ku jaaxle am feebar wala am problème boo xam ne problème bu ko jaaxal la bu la boo ko yebalee si Baye Siré sa xel day dal macha allah yàlla dina la jàppale si loolu.
ba ma fa daan dem 84 85 de fekkoon naa fa xëy na ñu feebar ñu bari ñu ne ma ñii dañuy faju si moom ci boppam moo leen daan faj moo leen daan faj nga daan am problème gis nit koo xam ne sax dañ ko war a tëj kaso wante boo demee waxtaan seeg moom amaana kooku dina dund ba deetu du dugg kaso yàlla mayoon na ko moom.
mu dugal yow ci sa xalaat lan moo war a doon toogaay jigéen ci biir diine wala ci sa biir tarixa ci sa xalaatu bopp yow
jigéen dafa war a maanaam luy toogaay pour waaw lan moo war a doon taxawaayam lan moo war a doon lo- cëram ah cëram waaw jigéen da nga war a toog sa kër euh, toppatoo sa njaboot gàtt sa gàttal sa tànk gàttal sa làmmiñ
te yeex na tàkk.
ah waaw di toppatoo di tëdd di nelaw rek.
ah de toppatoo
parce que gis nañ ne xam nañ gis nañ ñu jigéen ñoo xam ne par exemple eh, ñu ngi faral di wax jigéen ñi nga xam ne dañu xañ xarañoon ci wàllu diine.
dëgg la ñoo xam ne daal eh, ci wàllu diine si seen wàllu tarixa liggéey nañ ci liggéey yoo xam ne daal lu lu- lu am solo la.
dëgg la waaw loolu yëpp ci taxawaayu jigéen la tamit.
dëgg la dëgg la waaw ndax liggéey si sa diine wala taxaw si sa tarixa lu koy yëkkati wala lu koy defar lu koy defar loolu tamit la.
si participation jigéen ñi lañu parce que en fait ne kon dañuy li- volet bi ñu bëgg a defar mooy wane taxawaayu jigéen lan la jigéen mën a def ci diineem luy yëkkati diineem lan la jigéen mën a def ci biir tarixaam luy yëkkati tarixaam luy suqati tarixaam moo tax ñu bëgg a def volet jigéen parce que généralement bu ñuy wax dañuy wax góor ñi góor bi seex la lii la def wala lii la ñuy def waaye du ñu gis jigéen ñi dëgg la te lu jig fu fu góor nekk rek jigéen a nga ci wetam wax nga dëgg xëy na lu góor ñi def rek jigéen ñaa ngi def lenn ci wetam loo xam ne xëy na fisul ndax joxuñu leen kàddu moo ñu moo tax ñu bëgg a def volet boobu pour xam ñun jigéen ñi wala ñun ñi naka la ñuy jëfee pour ñun tamit am nañu rôle boo xam ne danañ ko def suñu tarixa wala suñu diine yëkkati ko su jëm kanam dëgg la waaw.
fii daal man maa ngi boobu ba tey maa ngi doon jéem a waaj pour ne dañuy jéem a former fii daayira wante daal dama amagut ñu ma si jàppale ba tey ndax xëy na fii boo dee seet koñ bi yëpp presque ñu fi nekk ay tijaan xa euh, ay kii murit côté bi daal bariwut gisuma ñu ma fi xam ñu bari ñoo xam ne ay taalibe Njaasaan lañu moo tax loolu daal moo ma xaw a moo tax daal mënaguma dugg ci affaire kii Euh, daayira bi ma doon wax wax naa ko ay yoon yoon yoon wante daal gisaguma ku ma ci jàppale
ah non je maa maa ngi doon laajal sëriñ bi léegi waaye boobu def naa boobu la réponse am nañ ci réponse mooy dine jigéenu kunta kunta yi sëy ak ñeneen ñu dul kunta kunta yow benn exemple nga ci sa bàjjan tamit benn exemple la ci dëgg la parce que nee naa ma jëkkëram lébu lébu la moom wax nga dëgg ah waaw eh, ba tey daal Maria, tu as quelque chose à ajouter Hmm? Non, j'ai posé la, la question du... D'accord. Eh, Bismillah, bon, on a guéri de Kunta.
ok Hein?